gis nga ko bu ñuy xuloo yow man xiyaam walaw tara isi saalimuun mawqufuuna inda rabbihim ñi ñu réeraloon ak ñi leen réeraloon bañaloo dem yow man xiyaam dañuy taxaw xuloo walaw tara isi saalimuun mawqufuuna inda rabbihim yarjiu baaduhum ila baadin al xawla ñuy jo jox jolla sant ay wax ñii ñu ngi leen tuddee ust al mustadafin ñii ñu ngi leen tuddee al mustakbirin yaqulu lasina studifoo li lasina stakbaru lawla antum lakunna muminin yéen ñi bul woon ak yéen nu gëm yàlla ñooñu xaala na stakbaru lazina stud'ifu nahnu saddadnaakum anil hudaa ba'da iz jaa'akum noonu noonu doxal seen diggante ak alxuraan ak sunna bal kuntum mujrimiin kat yéen ko ay saay-saay ngeen woon lan nekkoon dafa neex rek ngeen ànd ak ma wa qaala lazina stud'ifu li lazina stakbaru ñooñu toon wax ne ko bal makru layli wan nahaar ista'muruunanaa an nakfura billaahi wa naj'ala lahu andaadaa yéen a doon fexeel guddeeg bëccëg pexe yu ne ngeen di ko def ngir bëgg leen gën a gëm borom bi ne loola mooy xuloo ña nar mujj safara bu ëllëgee ñii réeroon ak ñi leen réeraloon borom bi tabaaraka ko taala nee na boo bis boo gisee seen xuloo ba isil saalimuuna mawquufuun inda bi foofu lañuy mujj beneen ba mooy topp bànneexi ay nit yoo xam ne dañoo réer réeral ñu bari ba noppi di woote ca la ñu nekk qul yaa ahlal kitaab laa taxlu fi diinikum xayral xaq ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بروم بي دنا بولين توب نيت بانيخي نيت جو خامل دانيو رير ريرال لو باري باري باري باري باري واتي يور بوكو نتا ايتام لاي واتي نيت كي خاني كو توحيد موي موي ووت اك نجوب بغا غينديكو تي ووتو كو سي يالا قل ان هدى الله هو الهدى نجوبك يالا رك موي اك نجوب moo Ibrahima bo gisé yi mu tejé won bunti bokkaale yi borom bi ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaman defna la ngay imamu nit ñi ci tawhid wa kazalika awhayna ilayka an tattabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal al suñu borom fu mu tudde Ibrahima rek da cey tegg wa ma kana minal al musrikin musta bok ci ci kan yi motax mu ne kon roy len ko xad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahima wal ladina maa tawhid jële len ko ci Ibrahima alayhi salam moo tax daf ne illa rabbal la alamina allasi xalaqani fa huwa yahdin yàlla mi mu bind moo may jubal moo may wax fu may jaar du duma dem di wuti wér wala muy wut ñu naan ma defal nangam lu pok la li mu jàngale ci diineem ji ci lay wut ak njub waaw waaye du mu wut ay sekk rek ay doga ay yooyu yëpp ma defee ne yooyu moom ma mën a gindi moo ma mën a may ngërëmul yàlla déedéet li ñu jàngale ci lislaam mu leer nañ julli juróom yii koor yi asaka yi aj makka yi mboolem jëf yu baax yi yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam jàngale na ko foofu lañ jub nek motax borom bi tabaaraka taala ne ñi nga xamne am na ñeneen ñu ñu topoon doon wut ci ñoom ak njub bu yowmal xiyaamee wa baras wa lillahi jamian ñoom ñep lu ñu teul ci kanamu yàlla fa khal du'afa lil ladina istakbaru du'afa ñu néewoon doole ja wax ña doon ganda ngàndelu ne leen inna kunna lakum tab'an nu yéen lan toppoon fa hal antum mukhnuna anna min asabi llahi min shay ndax mbugalum yàlla mii tey mën ngeen nu cee fegal dara ñu leen dee law hadaana llaahu la hadaynaakum mu bu nu juboon jubal leen bu nu juboon jubal leen te xamoon ngeen ne topp ku jubul xam nga ko ah, koo xam ne léeg-léeg bootul moo lay yónni la muy moyee yàlla yaa koy wutali leer na ne sa waa jooju jubut da ngeen a ci yàlla noonu xam nga ne jubut waxtu julli bu jotee nga gis ko moom du génn ma nga tëju doo ko gis ca jàkka ba noppi nga ne moom nga topp moo tax ñu ne law hadaana llaahu la hadaynaakum bu nu juboon jubal leen moo tax sawaawun alaynaa a jasirnaa am sabarnaa maa lanaa min mahis tey moom nu muñ ak nu salit moo ci yem amuñu fu ñuy rawee borom bi ne qul hal min surakaaikum laajal ma nit ñi ne leen ñi ñuy bokkaale ak yàlla ndax am na ci man yahdi ilal xaq ku leen mën a teg ci yoonu dëgg qul illaahu yahdi lil xaq yàlla rekk mooy tege ci yoonu dëgg afa man yahdi ila alxaq nag an yutaba am man laa yahdi ila an yuhda ki ñu war a topp mu yàlla miy tege ci njub moom lañu war a topp wala ki nga xam ne moom buñ ko gindiwul moom du gindi ko famaa lakum kayfa tahkumun naka ngeen di attee ci xel mu jub bëgg a topp koo xam ne buñ ko gindiwul moom mënta gindi ko